asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu cher internet youtube de Reubeuss TV ñu ngi leen nuyu di leen ziyaara di leen wax nag tey ñu ngi fii ci Reubeuss di waajal poli kii mënut a tëdd set seetal ak journée 48 boo xam ne mooy am solo fii nii ci biir Reubeuss mooy gis comme ni ngeen ko gisee rek samedi ak dimanche la activités yi di am samedi gars yi dina def benn set seetal bu mag bu normal fii nii ci biir Reubeuss di ngeen di si àndaan nag seen seen youtube bu Reubeuss TV. waaw ñu gis ni ñoom dañoo organiser woon 24 heures pour célébrer. anniversaire sen xandal wu mu jele coupe bi daw 2 février mu jëloon coupe bu nawetaan bi ren ñu bëggoon ko célébrer léegi ñu gis annuler nañ ko salam alek sëñ bi ziar naa waaw fii Lopé ñu ngi delloo ziar bu baaxa baax. ma ngi am jàmm. ñi ngi am jàmm bu baax a baax. waaw ñu gis ñi ngeen organiser won 48 heures li ngeen annuler ko lan moko waral. wa bala dara damay nuyo waara bas du nuyu senegal du nuyu aduna di ziar ñëpp. di sant sama yaay ak sama baay di sant yàlla suñu borom di leen wax ne ñu ngi kontaan ci ñëw bi ngeen ñëw fii euh, set suñu ñun waa Rëbës rawatina man mi <clears throat> pardon bokk ci bureau bi di leen wax ne rek question boobu noonu pour tontu ko day yomb yàlla dafa dogal moom mooy maye mooy nangu te daf ñoo mayoon mais daa nangu dañu am ñaari dese yu nekk fii biir Rëbës yoo xam ne ñooñu ay légende lañu biir Rëbës. donté dem nañu mais il resteront toujours des légendes fii ci Rebeuss looloo waral ñu annuler euh, festivités yi ñu waron organiser pour le 1er et le 2 février. légui da ngeen japp benen date pour def ko wala wa fum mu ne nii euh, su ñu xoolee programme yi euh, su ma juumul mi ngi ci man sax mais mun naa la ko détailler mais yaakaar naa ne comme sa question la dama la koy tontu mais jaru ko ñun jàpp ñu benn date pour defaat lène mais le samedi incha allahu rabbi ci carton yàlla. dañu fas yéene eggali programme bi nga xam ne moo jiitu woon ci programme muy set bi ak wàccee kaamel ñaanal ñëpp waaw suñu way dawlu yi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci tolof tolof ñu nekk ci kaso yi ñu ne ci yu metteeg feebar ak yëpp daal noonu la demee. kon daal samedi da ngeen fas yéene def set daal fii si Rebeuss incha allah. ci nu yàlla mais en collaboration avec la mairie et le gouvernement ministre bi yor environnement da ciy dugal loxoom. Aliou da ciy dugal loxoom te <clears throat> ngeen baal ma dafa coïncider ak ñenn ñuy wax ne gouvernement bi ñoo organiser loolu déedéet ñu ngi juum gouvernement organiser wul tous. dafa tombeek suñu feetu ñun victoire ci kaw ñaacu keer jour bi ñu jël coupe bi ñu organ ñu bëggoon organiser loolu gouvernement bi tombeek moom journée boobu journée. Euh, naka je sais pas Macky am na nu mu ko tuddee ak gouvernement am nay set xaw ma Dakar ville propre xaw ma pas dafa tombe mais ñun avec l'appui de euh, du maire de Dakar Plateau ak benn association bu nekk fii ñooñu la ñuy àndal ci liggéey boobu te loolu fii la yem biir demuñu Plateau demuñu Médina pour mu leer quoi waaw loolu bokkul sa question mais dama bëggoon mu leer rek comme danga may poser question tamit te pour askan bi la pour waa Rebeuss xam il faut ñu leeral lépp daal parce que tamit wax ba pare ñu naan fàtte nga lii wala bàyyi nga lee man loolu du ma neex moo tax il tamit ma wax la lu leer.

ñëwoon naa ba seen siège waxtaan ak ñoom ba ñu wax ma procédure bi ni muy demee ak yooyu mais il s'est trouvé que ne comme dëj la mënutuñu ko def mais man ñi ma xam xam sama Facebook ak ñi am sama WhatsApp xam nañ ne man euh, dugaloon naa publication yi mais après cela dugalaat naa publication parce que dëj yi moo tax ñu annulé de de deux décès la il a fallu ñu annulé ko mais ñu ngi maintenir sa setal bi waaw noonu la demee. gis nañ li ngeen di war a def set setal gis nañ set setal lu baax la mais pourquoi pas ngeen di xaar ba seen ay si am victoire ngeen di ko def anniversaire pour soor set pourquoi pas mënuloon def à chaque fois rek ngeen di set wala ngeen amul ku leen soutenir wala lan la waa loolu di ñaax doomu aadama yi parce que man def naa ci maire bi 7 ans wala 8 ans euh, nit doo xaar sa maire quoi nit ku nekk boo yeewoo bale sa buntu kër yaakaar naa dina set du dëgg kon maire bi bu ñëwee day mottali rek du dëgg ñun xaaruñu moyen ñu one est des Rebeusois et fier one est né ay doomu Rebeuss lañ xaaruñu ku ñuy euh, defaral suñu koñ déedéet on a toujours été comme ça te loolu lañ fi fekk donc du ñu xaar ku ñuy defaral dara set setal bi du loolu par exemple man sama buntu kër tilim na maay jog ma bale ko du ma xaar doomu aadama baleel ma ko n'est-ce pas waaw mais kon du dañuy xaar ay xandaalu am événement rek ñu bale ko déedéet ku ci nek da ngay juk nga bale sa buntu kër waaw tey jii nii Bamba fa li def goxam xaarul ku ko baleel xaarul gox bi woko xaarul kenn dafa pavé koñ yëpp ñun suñu koñ la lañuy def pavé kër ki baye kër kële lool mo fi am duma joxe exemple duma cité non parce que du sama cër quoi mais euh, c'est pas ñun Bamba Fall ëpp budget man liggéey ci mairie bi yag na fa Bamba Fall ñoo ëpp xaaliss fuuf mais amul medina centenaire fépp la pavé te pareegul mi ngi ci travaux yi mais mënuñu naxee ay dër pavé ñaari koñ taxaw di c'est c'est man dal xaw nu mu démé quoi c'est insensé amul sens wa mais kon boudé côté set mom amul ku ñuy xaar ñun dañuy set suñu koñ bam neex avec l'aide du maire avec benen association ñun xaar ñu lool wa lool la bëggon tontu ci loolu quoi mais est-ce que waa Rebeuss yëpp xam nañ ni da ngeen di def seen seetal est-ce que woo ngeen leen tamit ci journée bi. waaw parce que lépp loo gis waxtaan la te yaakaar naa ne am na ay kilifa am na ay njiit yu fi nekk te jóg nañu def ay prêt à porte ay proximité par exemple politicien yi li ñuy def mais lii affaire de gox la par exemple ku ci mel ni man dugal naa postulé na euh, def naa sama poste ay ay ay ay publication muy Facebook muy euh, WhatsApp gaay ñu koy gis ku ci melni suñu président dugal nako. ku ci melni ni Jama Kase dugal nako té d'ailleurs sax ñom en personne ñoo jóg dem dem def sen ay euh, porte à porte proximité pour gaay xamné carrément le samedi inshallah rabi 1er février 2020. mille vingt xandaalu day euh, rëbës sax laay wax du xandaal rebeus day def sesetal bu waaw ku ci nekk boo mu nee génn bale sa buntu kër génnal nga bale sa buntu kër bul xaar sax ñu jox la peel parce que kër gu nekk am na bale kër gu nekk am na peel n'est-ce pas waaw na ñëpp jàpp loolu incha allahu rabi ci kàttanu yàlla. waaw gannaaw loolu lay wax waa Reubeuss TV. waa Reubeuss TV moom di leen wax ne rek euh, initiative bi baax na euh, di leen souhaiter bonne continuation di leen wax ne ay ndaw ngeen kuy doog a jóg moom il faut nga mel nii tamit jaayante. Euh, mu am engouement ak dévouement bañ ci euh, tëx di déglu ñëpp déglu ñëpp conseil yëpp baax na yi mais nag il faut nga segg yi baax nga jël yiboon nga sànni waaw di leen wax na nag yéen nekk leen si jàmm te ci kàttanu yàlla Reubeuss TV suñu TV la ñun dinañ ko gérer dinañ ko enjoy chaque jour incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla. waaw maa ngi fay soxna si. tay da ngeen ameloon fi set setal bu reuy fi di rebeus tay ñu ñëwoon di leen xam yeen ba xam yeen paré ngeen set setal bi ou pas. ah waaw loolu da gaayen mom lu baax lu mo wax dëgg yàlla ñu koy paré bu baax baax a baax incha bu ñëwee mom dañ ci def lu mën te loolu lu rafet la ñepp a ngi koy rafetlu billaay. ah ñepp a ngi koy rafetlu ba xam yeen set setal bi bu joté yeen ñepp di ngeen jenn ngeen mobiliser wu yeen ñepp ngeen jenn set setal ko dina ci baax ak yeen ñi nekk seen place liggéey kay bi. non inshallah inshallah fi sun secteur la ñun ñëpp ay génn gaañ billaay set setal fii nii yëpp ndax fii suñu secteur la quoi mooy loolu waaw ñu ngi koy pare bu baax. yéen ba xam yéen mécanicien di ngeen si jàpp yéen tam ngeen jéem a patata yéen si côté kii ngeen nekkee tali bi di si liggéey ngeen mën a jàpp si liggéey bi liggéey bi nga mën a jëm si kanam daal. non si dañ siy jàpp kay dañ si jàpp bu baax sax mooy loolu dañ siy jàpp bu baax ñun ñun suñu mbokku mécanicien yi fii nekk fii yëpp dañ siy jàpp ñu ngi koy pare bu baax incha allah. ah di ngeen ko paré bu baaxa baax yeen ñep ngeen jéem and ak ndaw koñ bi ngeen japp ci def ci liggéey bi parce que yeen mëna sété sen koñ mëna jappalé ñi ñi tamit non si waw day génn ñu ñëppay génn inshallah ñi gang yëpp gars yi yëppay génn pare ko ak ay sama patron wa kon baaxna lo xam ci revue TV ah revue TV gaay ñi ngi rafetlu bu baax sen taxaway ñi ngi ñaan yàlla yokkate ngeen jëm ci kaw ñëpp adna bi yëpp xam leen loolu la leen ñaan merci beaucoup

bon euh, mobiliser nañu vraiment Euh, et am nañu yaakaar ni euh, samedi prochain Inch'Allah, allah su ñu yàlla dama suñu masse effectivement mobiliser nañu. mais information maa jàll na bu baax nu mu war a jàll. am naa ci yaakaar su sànq aussi maa ngi waxtaan ak su benn ba Diaba Kassé am quand même euh, que Rebeuss euh, samedi inchallah allah su ni yàlla nañu masse. waaw foog na information bi jàll na. parce qu'en fait amul coloration politique bon dañu dañu ñaan yàlla képp kuy doom Rebeuss ak parti politique ba mu nekk ak euh, euh, parce que c'est une affaire de de de service public politique Papa. Euh, ni parce que ça, bi une nañ ou ou PS wala mu quartier voilà voilà voilà pourquoi euh, un domaine plateau parce que le domaine vraiment euh, question je me l'explique pas. parce que je sais qu'il y a un ou deux mois bon premièrement, un euh, ko mais bon mais effectivement il les raisons profondes Il y a manque de coordination là,

maa yaa ngi si jàmm maa ngi si jàmm waaw ah, sant yàlla bu baax a baax baax waaw maa yëngu ah, sa setal bi am fii si Rebeuss waaw dégg naa ko waaw waxoon nañ ma ko la fois d'ailleurs pour samedi gars dañu décider rendre propre quartier bi quoi waaw vraiment loolu option bu baax la vraiment kontaan naa si et puis dinaa def ah, wax naa ko sama boy eh, ak kii kii que ce soit sama kër ak kii environ booy bu ci nekk ku ci nekk loo war a def di nga ko def matériellement financièrement dinañ ko def incha kon yéen a koy waajal daal bu baax a baax. bu baax a baax waaw vraiment laaj na loolu aussi lii mbir la boo xam ne dañ ko yéex a def waroon nañ ko mun a def depuis lool parce que fii Rebeuss vraiment nu mu mel ak conjoncture nu mu mel vraiment kontaan ñu mënoon a nekk une belle façon ku ñëw Rebeuss Rebeuss dara nekku fii nit yu baax rek fi dëkk vraiment bëggoon nañu loolu dina tax ah, ñu xam ah, Rebeuss ban place la fi nekkee biir Dakar au juste voilà vraiment. léegi lan ngay wax waa jeunesse sa bés yi pour ñu ñëw ci bés bi. waaw maa ngi maa ngi leen di mobiliser bu kenn toog mag ndaw jigéen ku ci nekk ah, ah, le samedi 7 heures du matin ku ci nekk solo am tenue préparé fu fu fu ah, bés bi ak nu mu mënta doone ñu ñëw rendre propre suñu quartier moom leen fi am waaw maa ngi leen di gërëm vraiment. léegi ñu ko organisé lan nga leen di wax pour ñu bañ a faral di gëj am yu mel nii ndax yu mel dafa baax ci quartier. waa man bi ma sañoon. Euh, bu nekkul chaque mois sax chaque deux semaine ñu ñu ñu ñu def seen seetal bi loolu dina baax si si Rebeuss bi quoi vraiment waaw moom laa gis waaw. parce que wolof day day faral di wax mu ne nit fu mu dëkk moom moo ko war a seetal. waaw loolu moom wax bu dëgg la vraiment nit ki fi nga dëkk boo ko seetul xam nga kan moo koy seetal kon boog seet si ah, si dundi nit la bokk quoi moo sañoon Rebeuss fenn du ko dàq si Rebeuss si si si Dakar vraiment vraiment maa ngi maa ngi leen di ñaanaat bépp Rebeuss bépp jeune. muy mag muy ndaw muy jigéen ak góor bu bu ah, ñu def mobilisation parfait ñu ñëw ah, rendre propre suñu quartier Rebeuss waaw bu ma sañ waa merci. léegi looy waxoon waa Rebeuss TV. vraiment gis naa option bu baax la et puis ah, kii seen chaîne bi yàlla defar leen jàmm bu mu nekk beneen télé boo xam ne ñëpp foo ku nekk ne ku fi nekk si àdduna dégg leen waaw vraiment ngeen góorgóorlu di courage. maa ngi am jàmm. sant bu baax a baax. waaw ñu gis ni Rebeus dafay organiser set setal bi nga euh, samedi ñu bëggoon xam set setal bu lan moo ko waral. waaw parce que soo gisee ñu def set setal parce que comme ñun doomu Rebeus leen Rebeus leen juddoo fi neen màggee fi neen yero tey Rebeus setee tey day mel ni tey ñu ñëpp noo àndandoo liggéey bi liggéey mu set parce que Rebeus dafa war a set comme parce que surtout rek fii du maanaam du mel comme comme yenn gox yi te dafa bokk gox boo xam ne goxu ñëpp la ku fi ñëw da ngay bokk. léegi maa ngi nii waajal journée bi bu baax a baax. waaw nu ngi koy waajal bu baax nu mu ñëwee ni fekk see ko noonu bu soobee yàlla waaw. information maa jàll nu mu war a jàllee ndax avec. waaw loolu moom ñëpp yëg nañ ko moom waaw loolu moom ba ba Medina sa gars yi yëg nañ ko kon tey tey bu am na tey dañuy sant daal xam ne ne Rebeuss benn la daal kenn kenn mënu ko xal ñaar ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaw. mais pourquoi pas ngeen di faral di géej di def genre yooyu loolu mais loolu soo xoolee tamit xam nga xam ne loolu dafa nekk loo xam ne ñun si soo amee loo si ni nit la moom moo war a diriger loolu moom moom tànk génnul ñun ñun doomu Rebeuss génn pour def loolu il faut mu am xam ne dañuy jàppale pour loolu mën a am waaw. pour loolu mën a am loolu dëgg la. mais pourquoi pas euh, ngeen di sensibiliser gën a sensibiliser nit yi ñu bañ nga à chaque fois ku ku nekk boo xoolee nga bàyyil sa buntu kër. del dëkk bi dina set mais pourquoi pas mënoo leen def loolu jël seen def porte à porte wax ak gars yi boo leen mënul di organiser yu mel nii mais ngeen wax ak population ba nga xamante ne nit fu mu dëkk moo ko mën a setal ku yor sa kaas sànni ko si mbalit pourquoi pas. waaw mais loolu soo xoolee loolu ay temps amoon na rëbës rëbës amoon na woon benn poubelle ay poubelle yu fi nekkoon mais poubelle yi denda ba nga xam ne xam nga rëbës tey soo tegee sam ku nekk su tegee buntu këram mbalit. mais oto mooy su ñëwee su ko dindiwee su nekkee bu dee bu dee pôle kii la weñ yi la gars yi ñoo jël pôle weñ di ko dem jaay feeraay te ñun tamit xam nga yi tamit war nañ ñoo ko bokk su seetee tey ñu ñëpp ñoo ko seetlu parce que comme tey di nga wax ni pôle bu si ne fu nekk am na am na pôle mais mbalit yi ñu ñoo ko war a seetal te comme tey man su ma jëlee sànni kenn daf jëlee tamit sànni tamit loolu su ko defee daal gëm naa ne daal loolu moom dina dina neex daal waaw. ñu ngi lay jaajëf mais looy wax waa Rëbës TV waaw mais kontaan naa si trop waaw parce que affaire yi moom rëbës moom ñu ñoo ko bokk waaw waa rëbës ñu bokk ñu bokk lu ne ko ñun den si woo pour jàppale leen pour affaire yi a jëm kanam mais yàlla na gën a jëm kanam daaw waaw ba yàlla defal li nga bëgg daal yàlla ko suñu borom daal yombal daal ba lépp a si barki borom bi. bi naka la. Ali Ali Fall. mais Ali naka euh, bi xale yi préparé pour samedi. ah di ñaan yàlla wér ak wér la ak fekkee. pour l'instant quoi ba samedi yàlla nga fi yàlla bàyyi ba samedi ñu xool ba xam ndax dina développé wala du développé daal mais ñu ngi ñaan yàlla daal mu développé mu réussir surtout tamit ndaxte loolu moo si ëpp solo daal waaw. naka ngeen koy waajalee eh, eh, eh, ba pare tamit aussi est ce que yaakaar nga ne xale yi dinañ génn carrément. waaw buñ ko tegee si yoon xale yi dinañ génn waxuma la sax dinañ parce que ñun suñu waaw kon dañ ciy dañuy dañuy dañuy dañuy faire quoi waaw surtout loo xamante ne dañ naan carrément pour sa gox set la ah loolu moo wax dëgg yàlla duñu def lenn lu dul ñëw moom. mais Ali naka ngeen koy waajalee exactement samedi parce que daf euh, lu rëy la lii ci euh, fi nga xam ni moo di rëbës. waaw am na benn affaire boo xamante ne daal bu amee rëbës moom yaakaar naa ne nañ ko waxta dee quoi li ëpp importance mooy tey ji du cadre set setal bi rek ko xam nga am na si ñoo xamante ne maanaam ci set setal bi dañuy jaar pour waxaale seen soxla pour fajaale seen soxla waaw mais buñ ko wékk man lool la gis quoi buñ ko wékk fofu rek li tax buñ ko wékk foofu parce que tay ji am na ñoo xamante ne jaar pour mëna am yenn nit ci lañuy jaar pour mëna wax yenn ci lañuy jaar pour bëru fi wax tamit amala leen ak leen leneen nañ am ci cadre set setal rek ñu ma ci duggal turu xandalu ok d'accord mais lan nga mëna wax jeunesse yi lan nga mëna wax xalé yi ba nga xamante ni euh, jour samedi dañ gëna japp ci set non man ci man wax waxat bëri wax la amna lo loo xamante ne jarul ñu koy wax parce que tay buñ né rebeus rebeus amuna ëmb comprendre Tali li ya yakar na si man occasion la bo xamanteni at biiru ñoo lañ koy amat buñu fi yalla baye we at biiru ñoo lañ koy amat waaw wala benen at biiru ñoo comme li occasion la nak dañuy ñaan yalla rek ñep génn préparation bi weesuwul ñu ne la caramani ni sa gox seetal fi nga dekk jor si jor préparation ndax buñ la yewon 4h di matin sax war nga mëna juk bokk affaire yi même bu fekkene temps temps mais am nga benn cinq minutes benn dix minutes boo xamante ne di nga ñëw représenté gars yi gis la nga ñëw jàpp si bale yi jàpp bu reet tour loolu sax yëg-yëg la boo xamante ne daal dinañ naa carrément ki considéré ni ah xam la ñuy set setal daal si man mais amul préparation boo xamante ne tey ji war nañ ko mën a def mu rëy wala mu yaatu wala affaire yooyu noonu parce que lii nii ñëpp jot nañ si ñëpp yëg nañ ko kon kay si man jarul ñu kay ñu koy préparé daal dudul ñaan yàlla daal bés bi eh, yegg si yàlla may ñu fekke liñ doon waaj li ñu doon ñaan yëpp mbëbët bi yëpp mu xëy mu sotti. d'accord mais al naka nga gisee rebe civi mi la talal micro mu genn pour gaay yi wax seen soxla. di sante yalla di leen ndax te defar yombul ñun xam nañ ci dara surtout man xam naa ci dara defar yombul mais nak bu la yalla tege njit da ngay nangoo muñ ndaxte di nga gis ñuy yàq di nga gis ñuy defar waaw di ñaan. yàlla yàlla na leen yàlla saxal ba ci kanam ak kanam li ngeen bëgg seen àdduna yàlla nga ko xam ak fi ngeen bëgg a yegg yéen ko xam yàlla na ko suñu borom bi def Reubeuss tamit yëpp nañu jàpp seen ginnaaw mu nekk affaire boo xamante ni affaire de solidarité la waaw man loolu rek laay wax mais bu weesoo leneen li moom wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla bu amee sa gox doo def dele lu nu lu ko parce que am na gox yoo xamante ne buñ ko mënoon am tey dañ koy def dañuy daw ba fat waaw comme yàlla def na nag dañ naan Reubeuss fële lépp sosoo Reubeuss am lii kon dañuy sant yàlla bu baax di ko lu surtout nag euh, ndayu mbilig muy fara amuñu fayam ndax li tax amuñu ndax te ñun dañuy woote réunion mu ñëw bokk si réunion bi bu neexoon mu ne moo ñu mag du ñëw wala am naa ay yitte yoo xamante ne ñoo ma gën a soxal ko loolu mais dépendrewul foofu saa ñu ko woowee réunion day ñëw des fois sax moo ñu fay jiitu ñun comprendre nga rawatina nag mu bokk si lii nii carrément dañu koy wax saa yi boo benn geste bu ndaw boo leen ko defee rek ma fekk si lañ indaale Reuz TV kon tey amuñu fayam yéen ñi tamit amuñu seen fay loolu kay di leen ñaanal rek li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla na ko yàlla def Reuz TV moom wax dëgg yàlla sa kaw sa kanam waaw.